compacteur bi dañoo fatigué dañoo sonn fi ñu doon dëkk fii muy suñu suñu suñu kër yi ñu yoroon fii c'est des maisons de trois cent mètres carrés des maisons de quatre cent mètres carrés yi nga xam ni toute la famille fii nañ nekkoon dëkk fii xam nga ku nekk di dund si sa sutura mais depuis état toj suñuy kër yi ba léegi amatul ñu benn yoon fa nga xam ne tey jii fi ñu dëkkee dëkkatuñu ci dëkk bu bu bu bu normal donc les les les suñu paa yi ñu ngi dee par benn par benn ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi fi nekkoon daan ñëw réunion gisatuñ leen parce que ay naqaru xol li ñu demandé à l'état de Sénégal mooy nañ ñu jox suñuy terrain nañ ñu jox suñuy terrain nañ ñu jox suñuy terrain nañ ñu jox suñu sec de vulnérabilité nañ ñu jox suñu accompagnement sociale te lii ñu leen wax nii on fait appel à toute la population banlieue de la banlieue ñu ñëw Euh, la réussite de notre marche bi ñuy def le 19 juin fii fi nga xam ne suñu kër yi fii la nekkoon ñu toj ko par l' du Sénégal à travers le projet terre tey jii fu may waxee ak yow nii état du Sénégal li mu waxoon ci affaire terre bi yëpp respecté wuñ ci dara instant bi ñu dañuy jël ni comme quoi que fi ñu taxaw nii suñu kër la ba léegi parce que l' état n'a pas respecté ses engagements ci affaire terre bi donc ce qu'on préconise de faire c'est de faire une marche le 19 le 19 juin ñu ngi def marche bi ci fii ci Thiaroye Gare jëm Pikine te marche bi ñuy def nii duñ ci xaar kenn on avait dit état de Sénégal dootuñu toogati di defati réunion di leen prévenir lépp lu ñuy defati ce sera spontané du la nga xam ne lu ñuy préparer la te li ñuy wax nii nag dañ koy wax Sénégal jël ñu jël leen en témoin nee nañ la kii c'est une première désormais on ne restera plus entre quatre murs di tenir suñuy réunion parce que fi ñu taxaw nii suñu kër la ba léegi l'État n'a pas respecté ses engagements tey on le dit à haute voix nous appelons l'opinion nationale et internationale nous appelons les bailleurs l'AFD la BAD la BID à ce que ñu intervenir ci li nga xam ne tey jii impact terre yi ñu ngi koy dund te lu nga xam ne du yoon jërëjëf merci beaucoup